wax ni total perte na 75 milliards de francs CFA ban commentaire nga ci def ci lolu commentaire bobu du teggi nin fep fuñu trouver pétrole dans le monde au Sénégal waroon nañu amuñu tekki wul ni duñu am ëllëg. mais bu ci gëna bu ci gëna simple moy pour que mu am droit dem fofu sax total dafa waroon fay la ca war wala mu joxe ko ci anam yu war xam koy wër pétrole wala gaz mun na nekk fekk <laughs> am wala nga am la koy jox da nga parce que ñun déjà ñun ñoo ci tout total puisque BP était prête euh, je me rappelle Shell aussi était prête def lolé total def ba jox ñu 25 millions de dollars <laughs> comme euh, euh, bonus de signature mhm. Et bu amee bis bu amoon pétrole li ñu ciy am ñun de 20% en moyenne de l'Union Totale. total mhm. à la limite si bu ñu total total découvrir nous on a rien perdu parce que mhm. bu découvrir dara lañ ci dul am naa dégg nag ñu non puisque trouvé où donc l'un avant de ak quand ñu communication nous euh, nit comprendre total par rapport à ce qui pétrole. bien sûr et puis c'est que le droit sax dem c'est-à-dire que le droit am mon permis de dem di di di di recherche. Mm-hmm. droit parce que nous avons... Ils offriront plus que lui plus que elle plus que Total. Nous mhm. nous lu ñu au Sénégal une gën totale. Total que nous trouvons, que nous ñàkk a trouvé. ce pétrole là nous que trouvé ak nous a trouvé. Mhm. bu ñu trouvé ñoom dañ ci am lu c'est comme yi nous trouvé pétrole il fi ñu trouver pétrole bi gaz bi c'est c'est offshore profond et Cayar offshore profond. Mhm. première tranche par exemple euh, après recouvrement après recouvrement bu ñu trouvé, un un frais vous 0 0,30 000 bar 30 équivalent barres 000 jour mais société bi moo 65%. Sénégal yóbbu 35%. lolu ça couvre largement le risque mhm. qu'il court mais si notre total nous propose nous au lieu de 35%, pire 25%, ça veut dire que nous mais ñun dañu dañu ray naxu ñu donc qu'il trouve qu'il trouve pas à la limite on prie même qu'il ne trouve pas qu'on restitue nos blocs et que peut-être à l'avenir d'autres viennent et trouvent d'accord <laughs> wax ci loolu alors loi sur la répartition des ressources voté nañ ko voté le code gazier am nañ le code pétrolier ITIE aussi mi ngi ñuy noté est-ce que loolu tey jii dafa garantir transparence ci ressources naturelles yi. mukk wax man dama bind téré dama bind bataaxal ITIE en 2017 euh, ni leen man en tant que ministre j'ai démissionné xanaa man maa leen gën a xam lu fi xew maa leen gën a tiim kayit yi am premier ministre bu bind. ne ba muy signé dañ ko signé loolu dëppoowul ak yoon yéen ngeen bëgg ni <laughs> yéen ñu gën a xam lu xew ñu réew sur la base de déclaration parce que ITIE ñëwul def audit saytuwul ay kayit du dugg def inspection day fondé wu sur li ko ministre bi ak waa ministère bi di wax. ci lay fondé wu ay kayit yu ñu koy jox. <laughs> si lay fondé wu ay déclaration la donc naka la ITIE war a mën a remplacer ñun. gouver euh, ay autorités sénégalaises ay sénégalais yu tiimoon kayit yi xam processus bi fekkee lépp ni d'accord wuñu ci li inspection générale d'État def rapport bo xam dañ ko soul parce que mais lu ñuy wax suul kere du ko tere feeñ suul gaz du ko tere xeeñ parce que dañu gis ni que effectivement dara dëppoo ci yoon donc xam nga affaire itiyé e yeeg yooyu deug yalla ñun bu dé yoy rek lañuy ñuy fondé wu. Mhm. ñun dañu am assemblée nationale. Mhm. am ay inst am justice réew mi am extra mais ñoñu fonctionné wuñu moy dëgg gi. d'accord accord ñu ngi joxe ay date 2022 2023, le premier baril de pétrole actuellement ni gaz bi am ci diggante Sénégal ak Mauritanie muy le Grand Tortue d'Ahmeyim am na ay questions yu ñu commencé installer. alors est ce que. mën nañu tomber d'accord ci date bi ñu joxe walla aussi tamit mënuñu jékki-jékki am

ku mu wuutu mhm. la defoon man wax naa bind naa nii suñu digganteeg Mauritanie nu ñu nu ñu nu ñu gaawtoo signé accords yi dëppoowul ak suñuy charte réew mhm. parce que la njëkkoon def war a def mooy ay autorité ay organisme indépendant ñëw nii ma ma leeral foofu mhm. ba ñuy signé accords yi BP ak Cosmos ñoom ñoo ni ci seen i déclaration nangami réserve mu ñoo fi ne mais Le mu am Mauritanie BP Cosmos li ñu am Mauritanie mon la ñu Sénégal. nous bu doon bu entreprise étrangère le moo ñëw peut-être que dinañu qui dina né non li fii nangam sama côté mo ëpp keneen ki né sama côté mon ëpp mais BP Cosmos mom euh, état bu ci perte né wu ci limuy am globalement c'est la même chose. Mhm. donc kooku ñu certifier loi au Sénégal lan la wax pour loolu justement dafa ne woon dañuy dem. jeeti ji benn ay société yoo xam ne màcc nañ seen xam-xam màcc na ci mbir mi mën nañ ko ñu certifier de manière indépendante absolument loolu xel mu na ko nangu mm-hmm. ñu ne nangami milliards de baril moo fi ne mm-hmm. Sénégal lii na ci am Mauritanie lii ci am mm-hmm. mais boo xoolee géographie boo xam ne wuute na frontière u Sénégal ak euh, Mauritanie mu ngi ñëw tracé par le colon est mhm. arrangé un peu par Senghor. des millions d'années après le, pétrole et le gaz bi ñëw nekkee foofu. Mhm. nga bëgg que c'est 50-50. 50 50 cinquante taxaw ci très bien très bien Nous euh, introduire comme mu Nous ci bu ñu Nous mhm. également sur le plateau.